sunu presse à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. dalal nag jàmm li gën a fës ci yéenekaay yi tey jile bokk na ci wàccaayu élection législative éligibilité maire bu Dakar di Barthélémy Diaz ak la nga xamante ni rek moo di reddition des comptes yéenekaay bi di Walf Quotidien moom dellu si ci la nga xamante ni moom la duppee ab règlement de compte politique ñeel la nga xamante ni rek moom moo di liste élection législative yi ak li nga xamante ni rek moo ñeel éligibilité bu maire bu Dakar Dakar di Barthélémy euh, euh, ku nekk rek euh, mu ngi contesté ci wàllam la nga xamante ni rek moom moo di la nga xamante ni rek moo jëm ci parti boobule di PASTEF PUR PDS ak APR ci la contestation yi am ca biir liste yooyu le yéeni kaay bi dellu si waat ci la nga xamante ni rek moom a di maître Moussa Diop ma nga xamante ni daan nay porter plainte kii di mandataire boobu boobule di Boubacar Camara gannaaw ba nga xamante ni rek dafa daal di confisquer liste ya nga xamante ni moo ko waroon yóbbu ci élection législative di l'observateur moom dafa dellu ni amal nañ ko ngir waajal élection législative yi lee ki nga xamante ni ñu jiital ci seenub liste ki nga xamante ni a moom mu di Karim Wade ñëwaat ci ñetteelu opposition bi ña nga xamante ni rek ñoom ñoo di sàmm sa kàddu ak takkuwàllu daanaka dañoo boole seen doole amal la nga xamante ni am moo di intercoalition ca département ya féete ca biir réew mi ak sax la nga xamante ni am moo di ca biti réew yéeni kaay bi di le quotidien moom dellu siwaat ca la nga xamante ni moom moo di intercoalition ba ñu namoon amal muy xam ne Amadou Ba moom du bokk ca boobule intercoalition ndax dafa am seddoo ba nga xamante ni mu ngi ñeel ci siège député yi nga xamante ni moom Amadou Ba àndul ca li ni mel yéeni kaay bi di réew mi quotidien moom dellu siwaat ci li ni mel di xam ne ne Amadou Ba moom du bokk ca boobu boobulee alliance ba nga xamante ni ah, la nga xamante ni rek ah, moom a di APR ngir waajal la nga xamante ni ah, moom moo di élection législative ya ñu dégmel deuxième tour diggante Macky ni rek moom moo di Ousmane la yéene kaay bi di Vox Pop daal di ni moom Macky Sall moom lañ jiital ci coalition takku wàllu ki nga xamante ni a moom moo di njiital APR war a jaamaarloo ak nga xamante ni moom moo xañ nguur gi gannaaw nag ci élection présidentielle ma nga xamante candidat wu Ousmane Sonko moo làpp candidat wu Macky Sall loolu nag la yéenekaay bi di Vox Pop daal di xamle muy xamle itam ci élection législative yi daanaka ñoom ñaar ku nekk rek dana wone la nga xamante ni moom nga mëne ca jamono jile yéenekaay bi le di Le Soleil moom dafa dellu siwaat ci quarante cinq liste ya nga xamante ni mu ngi foofule ci table direction générale des élections examen ñu war koo tàmbali tay jile ba tey yéenekaay bi le addu ci la nga xamante ni moom moo di ka ak ki nga xamante ni rek moom moo di parti bi le di âge jot na diggante Boubacar Camara ak ki ni rek moom mu di maître Moussa Diop yéenekaay bi di Sud Quotidien moom di ñëwaat ci jàmmarloo ba nga xamante ni mën nañ koo xaar diggante intercoalition bu opposition bi ak la nga xamante ni rek moom moo di liste bu Pastef yéenekaay bi di bés bi le jour moom dafa dellu siwaat ci déclaration de conformité générale bu 2022 ak déclaration yi nga xamante ni Cour des comptes daan na koy xamle ñeel reddition des comptes muy xamle ne daanaka lënt lënt ya nga xamante ni gis nañ ko ci reddition des comptes boo mayuwul rek du firndeel la nga xamante ni moom moo di transparence mu ñeel yorinu alalu askan wi yéenekaay bile di tribune moom dafa dellu siwaat ci kàddu ya nga xamante ni Ousmane Sonko daane woon na ko yëkkati ñeel la nga xamante ni rek moom moo di régime bu président Macky Sall na mu yore woon réew mi ak la nga xamante ni moom la ñu fekk ca gafaga réew mi mooy xam ne ki nga xamante ni rek moom moo di représentant bu FMI moom dafa daal di weddi rek ki nga xamante ni moom moo di bi Ousmane Sonko yéenekaay bi lee di Les a moom dellu siwaat ci convocation bi nga xamante ni amal nañ ko ci ki nga xamante ni rek moom moo di Diégui Diop ma nga xamante ni tey jile lañ ko wóolu foofule ca division des investigations criminelles gannaaw ab rapport ba nga xamante ni ki nga xamante ni rek moom moo di ministre Alioune Dione moo ko commandé yéenekaay bi lee di Libération moom dafa dellu siwaat ci coow di nga xamante ni dox na diggante douane ak Coris Bank mu ñeel la nga xamante ni rek mu ngi toll ci six cent trente millions milliards à sept cent millions aduwaan di toppee nga xamante dañ ko fay jaaree ko ci amul benn livraison ba nga xamante def nañ ko mu jëm ah, ci réew Sénégal mu toll daanaka ci soixante et un milliards ya nga xamante dafa ëpp ah, ca paiement ya nga xamante def nañ ko jaaree ko ci Coris Bank ah, kay bi tribune sport am moom adelu si waat ci ligue des champions asiatique ak Sadio Mané ma nga xamante ni daanay jàppale bu baax a baax Al Nassr ci ndam ya nga xamante ni am na ko aniki démb. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.